maa ngi sama famille waaw kon nag alhamdulilah. jërëjëf mbokk yi muy waxtaan wi na seqoon ak ab laay mbay Pawlish dënnam tàng na nag parce que euh, mer na te euh, kaay nii parce que mer na te wax dëgg yàlla euh, parce li mu wax rek ku sañoon boo juree sa doom moo fi gën ku sañoon boo juree sa doom moo ci gën possible ni ku baax maa ngi lay ku baax maa ngi lay. waaw fay nañ leen. Euh, Maïssa Diouf laa tudd. Maïssa lan nga ci Ablaye. Euh, Ablaye euh, sama cousin la. waajur bu jigéen bi jur sama nijaay bi ak waajur bu jigéen bu jur bu góor bu jur sama yaay bu jigéen te ñu tuddee ma ko ñu Maïssa Ndiaye ñoo bokk ndey ak baay. Ablaye mun naa wax ne presque ñu ñoo yaroo pikin ginnaaw raay sa maam Kura yal na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana moo ko yoroon sama nijaay mu ngi nii toog sonaluñu ñun ci dara. Ablaye woo naa ko maintes reprises mais su ma ko woowee sax duma jël téléphone daf may ne dama lay rappeler man xooluma lu mu am mais deret bi daw ci moom mooy daw ci man man pam may Maïssa nekkuma pour tuumal wala pour nii dama jóg pour mbokk moo tax mu jóge ginnaaw raay taal sama moto ba fii te ba mu ñëwee dama ñaanoon njekk pour sama nijaay mu bañ a wax sax ci média bi mais man la ma koy ñaan tàllal naa ko loxo na ñëw ñu man ko doon benn ñëw tuubal sama nijaay parce que mooy waajuram Ablaye santuwul Ba fay la sant kura njaay mooy yaayam mooy maamam bu jigéen ku ko xamul tali bu bees dégg nga ko kura Ndiaye ak Maysa Ndiaye bu jur sama yaay bu jigéen bi ñu ma dippee ñoo bokk ndey ak baay ñu dëkk tukaar man waxantuwuma Ablaye amul lu fee suñu bët Ablaye amul lu fees suñu bët yaa ngi na amul lu suñu bët xoolu lu ñu am dafay gën a rafet bu fi jégee sama nijaay mu ngi nii di tuur ay xéewal comprendre nga Ablaye taxaw naan aw ma papa wala sam dafa génn àdduna loolu rafetul rafetlu wuñu ko sa yaay wala sa waajur bu góor bu dofoon sax yaakaar naa li lislaam wax sang ko ba mu set nga namoo ko sagoo ko moom lañ fi am te yaakaar naa mooy suñu tiitar na retourné waat lii alal àdduna la rek àdduna la rek fii la yem na sagoo papaam bi. nan ngeen yëgee tag en fait euh, man si internet bi laa ko yëgee nii ah sama jabar moo doon comme dañu nekk di def ay TikTok di seetaan TikTok yooyu mu ne ma pap gis nga Pawlish da day takk jabar ma ne eh ñii dañuy bëgg bës rek Pawlish takkul jabar. mu ne ma est-ce que yow nga xam Pawlish ma ne ko Pawlish deret bi daw ci man mooy naw ci man man ak moom ñu werante ci sama jabar sama ñaareel après. ma expliqué ko munu gëm ma yëkkati sama téléphone woo sama tante Sophie Ndiaye mooy sama rakku nijaay bi nekk fii mu ne ma exactement nii laa ko yëgee man ne ko waxal sama nijaay su ñëwee na ma rappelé moo sama tànt xëy woowaat ma ma ne comme que noonu la demee baal ma mu dagg sama yite mu ñëw loolu mu fi indi dafa réer. lu jiitu loolu relation bi dox ci diggante waajur ak doom est-ce que daa nga ci dox ay tànk jàmm pour mu reconnaître pour mu ñëwaat ci papaam. Euh, en fait euh, Pablis dañ dul dañul dëglu dañ dul dëglu sax ba ngay si mun a ba nga mun a def tànk jàmm yooyu. mais lan mooy problème bi seen diggante moom lan la xeebeel la wala lan la. en fait man de gisuma ci ne xeebeel la. peut être niveau am dafa jàpp ne ñun duñu ay classe am wala. loolu mooy xeebeel. waaw mais parce que xam nga pour terme bu gën a rafet moo tax ma waxee noonu ko en fait. pour mu gën a naay mu gën a. Pawlish amul ku niveau boo xam ne tey c'est extraordinaire boo xam ne tey jii toll na foofu tey. moo tax ma ne xeebel la du li ma jàpp bokk jàpp ma ay niveau la parce que du Michael Jackson du du du Bill du président du kenn nit la rek comme ñëpp. waaw mais en fait xam nga population Sénégal moom ñooy yëkkati nit ñooy daaleen nit quoi peut-être fi fi si loo bi ñu ko dugal moom yëg na boppam ne ne peut-être mun rus na présenter ay parents am. waaw d'accord dinaa leen si fekk si mais waroon na réfléchir lu bari ba xam fi mu jóge xam fi mu bokk yàgg naa dégg muy def discours am sama maam sama maam sama maam je pensais que sax même buy wax sama maam mu namoo sama maam kuréel bi nga xam ne pikin daagu daan ñun fan lañ nekkoon sa maam yor ñu est-ce que dégg ma sama maam yor ñu boobu bu dara dul dara du sama nijaay munul dara sam sama yaay munul dara comprendre nga sam maam kura yor ñu kon lay bu demee bay bàkkoo maamam di ba di budul sam maam kura ñu ne déet waaye muy annoncé ne sama sama nijaay dafa dee dafa ñaaw dafa ñaaw mu war a takk jabar même sama nijaay bu fi nekkul sama nijaay bu fi nekkul sama nijaay Daouda mu ngi fii sama nijaay Moussa Ndiaye mu ngi fii est man cousin am laa munoon na ma woo te man maay taawu kër gi j'ai des frères am na frères yu fi nekk mais maa ci mag man maay taawu kër gi si famille bi yëpp. kon yéen ay bokkam takk gi am ci kenn ko ci dem ci takk. man de yëguma ko yëguma ko si internet bi laa ko gis. gis nañ image yi gisoo leen ci kenn koo xam tam ci bokk ci yéen la bokk kenn ku ci bokk amul amul kenn ku ci bokk lan moo tax moom defoo ko këram man su ma demul rek kenn du dem billaa wallaay tàllaay su ma demul kenn du dem lu tax nga tuur xéewal baax na joxal booy mu àggal suma xol moo jeex dama jërëjëf bokk yi ba tey ñëwaat rek tey li ñu jaaxal waxaan naa ko ci la insisté waat mooy bis ku am néegu ndey am nga néegu baay mais gisuñu ci image yéen yi ñu ko seetaan ndax gis neen ci kenn koo xam ne jàpp ngeen ne kii bu dul bokk baayam bokk yaayam la. Euh, man de gisuma ko en di gisuma ko ñi ma fa gis mooy star yi nga xam ne ñoom la bokkal niveau ñoo fa nekk ak di maye njëkke ñoo xam ne yow say say doomu bàjjan ñu ngi fii yow say rak ñu ngi fii comprendre nga nga mun a maye ñoo njëkke ngay maye njëkke ay king kong nga xam ne xamuñu leen ñun xamuñu leen ñooñu ñoom xamuñu ñu tey yàlla tere yàlla tere Pawlish bu gënoon tey àdduna amul kenn ku taxaw sax sotti ko ñemee koo sotti ndox ku dul ku dul ñun te bu feebaroon tey ba ñu bedd ko si ñun lañ koy indi mu neex ñu mu naqaruñu dañ koy fat sama nijaay mu neex ko mu naqari ko da koy fat bu fekkee ne am na ñu ko wax dëgg nañ ko wax dëgg di nga ki la xañ nga nekk ak sab waajur mu ngi nekk ak waajuram ah. mu ngi nekk ak waajuram di ko sagoo di ko ndamoo sama nijaay mu ngi nii du man du moom du keneen topp lijjantiwul keneen ne pour ñaar dërëm nga jox ko ko mais nit bu la yëgee da nga koy yëg bu la du la yëg yaa ngi dégg mais man li ma koy wax sama nijaay du ko beddi tey du ko beddi suba ndax dinaa ci dox mais à une condition mu retourné waat xam ne ñun ñu koy wax ne ne kaay nga jubóog sa papa jàmm lañ ko soxlaal soxlaalul ñu lu mu am ak lu mu am man de soxlawu ma ko maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla je suis embauché nga congé laa nekk nii bu nekk nekkutoon congé na sax du ma fi ñëw ndax duma am temps kon amul lu may toppee Euh, Ablaye mbay amul lu ma koy toppee mosuma ko ñaan ñaar dërëm mosul am bu fekkee mos a am na taxul démentir ne Pape Maissa ñëw na sama kër wala Pape Maissa mos nañoo rencontre fenn mosul am. sama famille du ñaan Ablaye. billaa wallaay sama famille du kenn du ko ci ñaan parce que leen may. ki lay may mooy ki lay seet mais ku la seetul doo ko doo ko ñaan ñii dañoo dañoo am jom de fay lañ sant duñ duñ ko mos a ñaan ñoom man xam naa tamit duñ ko mos a ñaan. te man su ma demul lu mu xew xewle ñi duñ dem parce ginnaaw yàlla yonte bi maa ci mag ñu waroon tiitaroo Ablaye muy seen doom ñi waroon nekk njëkk ablaay di yóbbu seen warugaru ablaay mu tànn beneen jigéen ah ñoo seetaatal affaire bi rek ñii am nañu leen naqari ñii lépp lu Ablaye du ndox ñii ñoo ko waroon a yóbbu parce que ñii maa nàmp jox leen kon bu tànn yeneen jigéen mu ko yóbbul ay wareefal tegu ko fenn Ablaye na delloo si xelam xam ne àdduna nax na ko nit mbokkam mbokki jàmbur duy mbokk mbokki jàmbur bu ñu la taggee rek dañ lay jaay ku la tagg te say mbokk taggu rek tagg taggel wa des na hmm. Ablaye na ñëw ci ay mbokkam na ñëw ci ron bàjjanam yii ma nekk mu fi mais na ñëw di seet ñii nee naa ko chaque jour na nga bàyyi xel man bu sama doole jeexee yéen ma war a yor hmm. kon fu mu mën a nekk ci àll bi rek dama am pour ñibbisi dee leen ko def seen xel mais gis naa ne dundagul loolu ab Ablaye jéemagul loolu na wëlbati xelam ñi ko wër dañ koy sànq de ñoo ñu ngi seen bu ñu xëyee seen yaay la ñuy dem ak seen baay ñi ko wër ñëpp seen baay ak seen yaay la ñuy dellu moom mooy dem jël appartement am yoof tëdd fa gisoo ndey gisoo bàyyi ci erreur la nekk su mënatul nag ay mbokkam la ñuy wër du ñu wër ñi sant ba de wóor na Rasulaay fu ñu nekk nit ñu fa loxo dina ne ñi sant fay Ablaay dafa feebar wala dafa tëlee su ko kon ngeen la la ñuy gën a xam na góorgóorlu na góorgóorlu da ko ko ci yoon de képp ku mu taxaw ne sama baay faatu na rek waxul dëgg man maa ngi nii di dund mayu ma ñaar dërëm nag Ablaye lekkuma ñaar dërëmam te maa ngi dund nag dafa maa suul may dund mais maa ngi dund man Faye laa sant Ablaye Faye la sant Ablaye Faye la tudd le 20 janvier 87 Ablaye judd laa ko ngéntee santul Bade Faye la sant Pawlish ko ñu ko tudd ab Pawlish mais mu tudd ko Pawlish Ablaye Faye laa ko tuddee na bàyyi xelam nag. jërëjëf na bàyyi xelam euh, di sant yàlla rek di ñaan daal Ablaye wax ji nga jàngat ci yaa jël di ci wax ji nga xool li nga ciy jàngat waaye li ma lay dolli rek en tant que frère mooy barke Baye àdduna bari na lu nit di dugg ay mbiram dem ba ci biir am problème peut-être ñàkk wi ñaan wéjur moo koy te yéenewuñ la ko yéenewuñ la ko su ma sañoon nga retourné wu ñëw ci sa papa waxtaan ak moom parce que bi ñëwee sa papa nee na da nga koo woo di ko baalu àq mu ne la baal naa la waaye bàyyi naa la na ngay xóoraal baat boobu baal naa la waaye banaa la te comme mi ngi dund profitewul nga ñëw ci moom waxtaan ak moom ndax yaakaar naa xolam bu seddee ci yow mu ñaana la lu lay yokk la mais du nekk lu lay wàññi loolu message bu ma lay jox la rek entante tant que frère li des nag dama leen di bàyyi yéen ngeen jugé en tout cas daal ñu ngi ñaan yàlla def jàmm te xam ne dul jàmm jàmm ko gën ku ne say bokk nag gis keneen ko ànd ay bokkam. bu baax. bokk ñoo ñu ngi téye seen bokk. Ablaye ñi mu àndal ñi dañoo am ay bokk te ñu ngi fay dem di diisoog seen bokk ñu leen doxal seen jabar di leen takkal seen jabar Ablaye moo beru ndax ñaar dërëmam yi mais duñ ko wari ñun ñun nañ dund suñu teraanga ak suñu ngor ba yàlla def ci ñun mais Ablaye duñ ko wari ndax ñaar dërëmam loolu rek laa koy dénk na góorgóorlu xam ne mënul am ku ma mag Ablaye mënul am beneen bàyyi ku dul man ku gaare ay siège vende dawal oto sax man maay bàyyam na xam loolu ñi muy wane ñëpp duñ seen bàyyi man maay baayam ay jamraak yooyu yëpp dañ koy sànni ci erreur te bu ko toogoon nag ma naa wax loo xam ne dina xam ne jamra du tus man maa ko wax ay jamra yooyu day sànq doomi jàmbur na bàyyi sama doom mu firi ñëw ci ay waajuram li mu ko ñaanal jabar ne ko bàyyi Ablaye nee na wocc baalu la ko àddina ak àllaaxira yow te bu yemal xam dina xam ay jamra ay jamra ñu ne ay jamra na seetaat xelam du nit ko dëggu bu dëggu woon dina gisu Ablaye ay fu mu jóge FG Partner Shipping, un outil gagnant-gagnant. FG Partner Shipping est une plateforme qui met en relation voyageurs et expéditeurs. Avec FG Partner Shipping, les particuliers vous transportent vos bagages à moindre coût. FG Partner Shipping vous facilite le transport de bagages grâce à un rayonnage d'environ 10 à 20 km de votre lieu d'habitation. Que vous soyez en France ou au Sénégal, si vous prévoyez un voyage et que vous avez de la place disponible dans vos valises, nous vous proposons de vendre cet espace à un expéditeur qui souhaite envoyer des bagages de la France vers la France, de la France vers le Sénégal, du Sénégal vers le Sénégal et du Sénégal vers la France. fg-partnershipping.com. Contact arobase fg-partnershipping.com. Avec FG Partnershipping, les particuliers vous transportent vos bagages à moindre coût.